yaa arxama arraximin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa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 di leen siyaare bu baax di amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci suñu waxtaan yi ñu ànd yéen ci fajaru dimanche yi te léeg ñu ñëw ci wàllu ñaan yi nga xamante ne danañ koy faral indi ak yi nga xam ne moo ci aju gëjoon nañoo indi bind bu yees bu jëm ci wàllu ñaan yi ak sax nag bind yu yees yu jëm ci waxtaan yi fan yii moom xaw naa jaxasoo tuuti ci ñun ñoo ngi leen ciy jégglu bu baax a baax tey sàkku ngeen ñaanal ñu Euh, ba ñu gën koo tal ñun tam ñoo ngi leen di ñaanal mu mel ni ñaan buñ koy wax dañuy waxtaane leen rek lu jëm ci tudd yàlla rek niñ ko baaxoo defee ndax mooy ngànnaayu jullit borom bi daa wax ne mel ne ku naan fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen wala ku naan tudd leen ma ma tudd leen sant leen ma te bu leen ma weddi moo tax ñuy wax ne tudd yàlla mooy ñaan ko yaa ayuha alladina amanu uzkurullaha zikran kathira borom bi nee na koy nañ koy tudd lu bari nañ koy tudd lu bari tudd yàlla nag ñaan daa bokk ci tudd yàlla parce que ci turam la te ci turam yi nga koy ñaan borom bi tagg ñi nga xam ne dañ koy tudd lu bari ne wa zakirina allaha kathiran wa zakirati aada allahu lahum maxfiratan wa ajran azima ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari moo xam aw góor wala ñuy aw jigéen borom bi nee na moo leen dikk njégal moo leen dikk pay gu rëy kon waxuma tudd yàlla ñaan li ngay ñaan ngir am ko ci àdduna waaye danga ci ciy amee njéggalu borom bi danga nga am ak fay ëllëg yowmal xiyaam suñ borom wax ne ñi nga xam ne dañ koy tudd ci seen bopp ci jamonoy jafe-jafe jamonoy ragal di ko tudd ñooñu day bokkuñu ci ñi nga xam ne dañoo sàggan yonent bi alayhi salaatu nee na ñi nga xam ne dañuy tudd seen borom wala ki nga xam ne day tudd boroomam ak ki nga xam ne du tudd boroomam nee na daa mel ne ku faatu ak kuy dund masalul xayyi wal mayiti julit boo xam ne day dund rek wala nit koo xam ne day dund rek waaye du tudd yàlla maanaam du jàng alquran amut eh, zikar bu muy def du laa ilaha illallah du subhanallah nee na daa mel ne dafa mel ne kuy dund waaye ku dee la ku dee dundu nit li tax nit di dund dundu dundu maanaa dundu ruu mooy mu bari lu muy tudd boroomam subhaanahu wa ak di ko kañ nee na nag ki nga xamante ne day tudd boroomam ak ki nga xam ne du tudd boroomam daa mel ne kuy dund ak ku faatu ci misaal kon loolu daa am solo masalu lladi yaskuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbahu masalul xayyi wal mayiti kon del tudd sa boroom subhaanahu wa taala dee ko tuddu de ko bàkk di ko kañ ndax tudd yàlla day yokk ay maqaama day yëkkati ay daraja day yokk barke day yokk sutura te day tax nit ki am tawféex suñ boroom subhaanahu wa taala ci boppam moo waxal boppam ci xadiisul qudsi moom day moom borom bi subxanahu wa taala mu ne maa ngi ci sama njortul jaam bi moo tax ñu bëgg ñu rafet jaam bi di rafet njortu ci boromam di rafet njortu ci boromam rafet njortu mooy jàpp ne dana baax bañ a jàpp ne yàlla dalaa fàtte wala nga jàpp ne dootu baax wala nga jàpp ne dangaa torox wala nga jàpp ne sawara nga jëm wala wala wala découragé ñaaw njortu ci sa borom baaxut moo tax mu ne ana inda zanni abdi maa sama njortul jaam bi bii wa ana maahu yàlla nee na maa ngi ànd ak sama jaam bi kon mu yow ak man ku mën a doon na ne borom bi subxanahu wa mi ngi ànd ak mi ngi ànd ak moom mi ngi ànd ak ñun waaye kañ nee na su ma tuddee boo tuddee borom bi subxanahu wa taala te tudd ko ci sa bopp maanaam tudd goo xam ne da ko koo yellu kenn kenn déggu ko kenn déggu ko waaye yaa koy yaa ngi koy bàkk laa ilaha illallah wala subhanallah wala alhamdulillah wala yaa ngi wax astaghfirullah wala yaa ngi jàng alquran borom bi nee na ma tudd ko ci mbooloo waaw wala boog ma tudd ko man itam ci sama bopp maanaam boo tuddee boo fàttalikoo borom bi subhanahu wa taala di ko tudd suñ borom tam ma nga lay tudd boo ko tuddee ci mbooloo nee na ma tudd la ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo mi ma tudd ma tudd la ci ñu baax ña fa nekk ca moom boo seqee ab jéego jëm ci borom bi subxanahu wa taala borom bi subxanahu wa day mel ne daa xelu jëm si ci yow day xelu jëm si ci yow li taxoon ma jàng xadis bi mooy tudd yàlla gi tawféex ji nga xam ne moom la ci borom bi def ba ne sama jaam bi bu uh, nu ma tuddee ma tudde ko noonu ma ko noonu ma ko noonu xadis bi yaatu la ndax dana dem ba ak ci nga gis ki nga xamante ne day tudd borom bi subxanahu wa taala te di ko wéetal te di ko kañ. jeexital yi nga xam ne moom lay def jeexital yi nga xam ne moom lay def lu yaatu la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tuddu yàlla wane ne alquran daa bokk ci ye gën a rëy mu ne ku jàng benn araf ci téere borom bi subhaanahu wa taala da ciy am fukki fukki yiw fukki yiw la ci am fukki pay ci wenn araf maanaam bu ne alif dañ koy bindal diis tiyaaba mu ne am ñu bindal ko diis tiyaaba ñu bindal ko mu ne miim ñu bindal ko diis kon tudd borom bi subxanahu wa taala mbokk yi lu baax la te mooy ñaan yàlla rek ñaan ñaan alxuraan nag daa bokk ci yi nga xam ne moo nekk ca kaw moo nekk ca kaw ca ñaan ya waaye képp koo xamante ne nii toog na ci barab moo xam dafa toog jamono jii waxtaan wi di jàll ci njël gi wala weneen waxtu wu moom mu toog fenn def ay subhanallah wala moo xam istixfaar la doon def wala mu jàng alxuraan lam ci amee ci yiw kenn xamul num toll kenn xamul num toll defe naa am na xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ma ngi koy wax naan maa jalasa xawmun majlisan lam yadkurullaha fiihi walam yusallu ala nabiyihim illa kaana alayhim tirratan fa in shaaha adabahum wa in shaa lahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit toogee ci ab jotaay boo xam ne tudduñu fa yàlla julliwuñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loolu tilim tilim lay doon ci moom maanaam waxul ba jotaay ba dañ fay def bàkkaar de waaye temps bi mu fa toog rek te tudduñu yàlla julliwuñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam day def ci moom maanaam tirim tilim bu neexee borom bi subxanahu wa taala mu mbugal ko ca bu ko neexee mu jéggal ko yal nañu borom bi jéggal kon toog ci jotaay la ca gën mooy jotaay ba doon boo xam ne dañuy tudd borom bi subxanahu wa taala am na beneen xadis boo xam ne day wax ne maa min xaw min xawmin yaqumuuna min majlisin laa yadkuruuna allaha fiihi illaa xaamu an misli jiifati ximaarin wa kaana lahum xasra nee na eh, eh, dafa mel ne aw nit buñ toogee ci jotaay bay jog te jotaay ba tudduñu fa seen borom subhaanahu wa taala nee na bu ñu jóg dañuy mel ne ñu xeeñ sax am médd méddum mbaam doon ñoo xam ne ñu perte lañ doon ñoo xam ne ñu perte lañ moo tax boo masaane ñëw ci jotaay yi léeg ñu toog ba mu yàgg ñu ne nañ def istixfaar nangami yoon wala nañ def subhanallah nangami yoon wala nañ jàng nangam ci alxuraanul karim ndax loolu nekk kafaar jotaay ba waaye nekk ci loo xamante ne luy mayee tiyaaba la léeg wax ñi bëgg a jàng alxuraan te ñu ciy nekk ma ne téléphone yi daa dox suñ digganteeg njàng mi am na ñoo xam ne sax dañoo amoon jukki alxuraan amub dog boo xam ne dang koy jàng ci bis bi fi ne alxuraan jàng ci biir téléphone bi waaye boo muy muytuwul yeneen application yi nga téléchargé wala yenn numtudati yi dox sa digganteeg li nga war a nafar ba day muj yàgg doo ko nafar dootoo ko nafar loolu mat naa bàyyi xel ma ñëw nag ci muslaay yi delloog yéen rek ci xisnul muslim tey nga xamante ne mën naa am ñu am ñaan yu baree bari ci li des ci waxtu wi bu ko defee ku ko déglu di ko dégluwaat di ko dégluwaat mën naa am yim ciy dabu yépp mu am ko ci ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyiwut lenn lu nit ki def ci ag dundam lu dut wax na bu koy def nam koy defee waaye lam fa war jàng ci ay muslaay joxe na ko fa jàngale na ko fa nga xam ne buñ la teree tey njabar tere la loo xamante ne xërëm la ak yoo xam ne yu daganut la digal nañ la ca wet ga loo xam ne lu dagan la di njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ay xadis yoo xamante ne nii wax ju leer la jamono jii nga xam ne yaa ngi may déglu nga xam ne jamono yi soog a yeewu la am ñoo xam ne def nañ ay yitte ba yeewu am ñoo xam ne ñu ngi nelaw ala kulli xaal ku yeewu ci nelaw day bàkk boromam da koy da koy da koy kañ dafa am ay afkaar yoo xam ne listiqaafi min an nawmi la maanaam ngir ki nga xam ne daa jóge ci ay nelawam ba ca jiitu tama andi ko mooy boo yeewoo nanga nga wax alhamdulillahi alladi ahyaana baxda ma amaatana wa ilayhi nusuur waaw ñaan gi jaar na fi ay yooni yoon maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma dekkal moo def ma dekki ginnaaw ba ma ginnaaw te it nag moo ñuy dekkal ëllëg yowmal xiyaam ca dekki gu mag ga kañ ga dee mooy bi ngay nelaw bi ngay nelaw wax nañ ne kuy nelaw fàttali nga amoon kuy nelaw nekkatoo fi te am na ñoo nelawandoo loon te yeewuñ te yeewuñ dañ naan la diw bi ñoo tàqali ko ñu xëy suba ne faatu na yal na yàlla yërëm ñi jiitu ñëpp borom bi subxanahu wa taala bu ko sooboon bi mu jëlee sa roo jël sa yëg-yëg gi nga tëdd di nelaw mënoon nga faa ge waaye soobaan na ko ci coobareem ak wane ne defe nga fi mission mu delloo la ko nga sant ko ci loolu waaye wane ne fàtte woo ne bis dana ñëw mu jël sa ruu te du la ko delloo ba ca keroog bisub dekki ba waaw moo tax. tudd yàlla la waaye kañ ko la waaye mbirum tawxid la mbirum tawxid la waaw boo yewoo ci ay nelaw na nga sant sa borom alhamdulillah alhamdulillahi alladi axyaana baadama amaatana wa ilayhi nusuur boo ca mënee teg laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin xadir subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim rabbi ixfir lii waaw est-ce que xoolal kii yowam gi nim nar rafete yowam gi nim yiwe yowam gi nim àndeeg tudd yàlla te fees ak moom te fees ak tudd yàlla te fees ak tudd yàlla ak bàkk te fekk te fees ak tudd yàlla ak bàkk ko foofu ñaan yu bari la waaye may joxe nii boo mënee yëpp baax na boo ko mënut boo ci wax baax na ñetteel bi ci ñaan yi nga xamante ne ku yeewu dana koy ñaan mooy alhamdulillahi alladi aafaanii fi jasadi wa radda alayya ruuxi wa adina li bi zikrihi est-ce que nga wax ju am solo maa ngi sant sama borom mi nga xam ne moo jàmmal sama yaram waaw moo ma may ma yeewu mën yëkkati sama loxo bi mu jóg ma yeew mën a tàllal sama tànk yi mu tàlli ma yeew soxla dara mën a sëgg jël ko ma yeew bëgg a dox tànk yi nangul ma allahu akbar am na koo xam ne ba mu tëddee ba mu yeewoo loxoom ba mënta jóg wala tànkam ya mën a tuta dox doxin wu soogi ñaagaan lay dox am koo xam ne sax làmmiñ wa rataxatut wax ja yombatut ngay sant sa borom nag ndax xéewal gim la defal xéewalam la xéewalam la mu jàmmal sa yaram wi mu jàmmal sa yaram wi sa loxo yi da ngaa yaakaar ni sa coobare la jotagoo facture buñ lay fayeeku sa tànk yi li muy tàllee ka lemu te mboolem lu du tànk yi nga koy tàllal ka lem ci kër gi am na lu la war loo cay def donte sax da ko koo balancé ca courant ba waaye borom bi subxanahu wa taala yombala la noonu kon nga sant ko ci yaa ngi koy sant ci sa ruugim la delloo. maanaam yeewu gi nga yeewu te mënoon na nelaw jaare fa ba noppi nag mu digal la nag nga di ko tudd mu digal la nag ngay tudd borom bi subxanahu wa taala mbokk yi ñaan gi ñaan gu am solo la te neex te làmboo itam ay ngëneel yu bari di ñetteelu ñaan ci koo xamante ne dafa nelaw bay door a yeewu ba yeewu suba alhamdulillah loolu lay wax alhamdulillahi alladi aafaanii fi jasadi wa radda calaya ruuxi wa adina lii bi dikrihi waaw mi ngoog ñeenteelu ñaan gi mooy inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wannahaari la aayaatin li ulil albaabi alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ardi rabbana maa xalaqta hada baatilan subhaanaka faqina cadaaba annaar rabbana innaka man tudxili nnaara faqad axsaytahu wa ma lilzalimina min ansaar rabbana innana samixna munaadiyan yunaadi lil imaani an aaminuu bi rabbikum fa aamanna rabbana faxfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'aatina wa tawaffana ma'al abraar rabbana wa aatina maa ala rusulika wa laa tuxzina yawma innaka laa tuxlifu almiicaad ñaan googu gudd na dama ko dagg foofu sax jeexitalu suratu Ali Imran la waaw suratu Ali Imran euh, euh, fala ñaan googu nga xam ne moom laay wax nekk waaw tàmbulee ko ca aaya cent quatre bala def ca saar wa saar wa ñaar téeméeri aaya la waaye la tàmbulee ci aaya cent quatre ba saar wi jeex bokk na ci li nga xam ne ci alquran ci ñaan ñi ñaan la bu nit ki yeewoo suba waaw bu nit ki yeewoo suba ñaanu kuy door a yeewu loolu genn la ci geneen ñaan gi nga xam ne moom laa ciy teg gannaaw bi nga xamante ne yi ma njëkk a wax xëy na gàtt na mën nga koo jàpp mooy ñaanu kuy sol ay yére koo xam ne dafa yeewu xam nga bu nit bu yeewoo moom ala kulli xaal la muy def mooy sol ay yéreem sol ay yéreem kuy sol ab kuy sol say yére moo xam bi nga sangoo bay xëy la wala beneen yoon la boo xamante ne du sangu bay xëy waaye daal waaj nga ba noppi bëgg sol say yére yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na kuy solu lu muy ñaan kuy solo lu muy ñaan nga xam ne soxlaatul kon ak njabar wala xëram wala dara waaye ñaan yu leer nañ yoo xamante ne wax yonent bi la alayhi salaatu wasalaam mu jàngale ko ci ay xadis yu wér ñaan yooyu ga ca jiitu mooy alhamdulillahi alladi kasaani haada haada shawba wa rasaqanihi min xayri xawlin minni wala quwa loolu ngay ñaan boo dee sol sa yére loolu ngay ñaan alhamdulillahi ladi kafaani haada shawba wa rasaqaniihi min xayri xawlin minni wala xuwa maa ngi sant sama borom mi nga xam ne mooma mooma solal mooma mooma solal yére bi maanaam mooma moo la jox yére bi moo la ko jox moo la ko wërsëgale moo la ko wërsëgale ci lu dul ay pexe ak kattan ndax am na ku la ëpp pexe te amut yére bi am na ku la ëpp kàttan te amu ko waaye nit a ngi defi pexe te xañ la ko te xañu la ko kon borom bi subxanahu wa taala moo la ko defal nga ñaan ko nga ñaan loolu ma benn benn laat ko wax ko par benn baat insha allahu taala te mooy ñaanu kuy sol yére alhamdulillahi ladi kafaani haada shawba wa razaqaniihi min xayri xawlin minni wala xuwata bu dee da nga ko doon bind wala nga doon wax ma waxaat ko yoon wu xaw a gën a nga xool li nga waxoon mooy ñaanu kuy sol ab yére alhamdulillahi alladi kasaani haada shawba wa razaqanihi min xayri xawlin minni wala xuwa beneen bi ci topp te mooy ñetteelu ñaan gi ci suñ ñaanu tey gannaaw bi nga yewoo ñaan gi ngay ñaan ba ca topp mooy ñaan gi ngay ñaan ci kuy sol yére beneen ñaan bi mooy ñaanu kuy sol yére bu bees koo xam ne day daloolu yees noonu lañ ko daan wax ñun daal nañ def bu ñu amee ab daloo léeg ñu jël ko dem ca Baye Saliou Sylla wala suñu jur Alhaji Maxtaar Sylla ca ci la ne ko ñaanal ñu ñaanal ma ci yére bi mag ñi daal nañ ko def ñëw ne ñaanal ma mooy am yére bu bees ñëw joxe ko ñu léemul la ko nga door koo sol cey am dàll yu yees ñëw joxe ko ñu léemul la ko nga door koo sol nit daan amu boto oto bu bees dawal ko ci yaakaar ci moom mu ñaanal ko mu ñëw jox ko ne ko ñaanal ma mu ñaanal ko ci mu ñaanal ko ci waxuma mu ne la bindal jëlal li takk ko ci biir oto bi nangam nangam yu baree bari yoo xamante ne nekkuma ci dàq ko saxal ko waaye daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na yooyu yëpp lañ cay ñaan waaw ñaanu ki nga xam ne day daloo day sol yére bu bees lub si saw bi jadid maanaam day sol yére bu bees day wax al day wax allahumma lakal hamdu anta kasawtaniihi as'aluka min xayrihi wa xayri maa sunia lahu wa acuudu bika min charrihi wa charri maa sunia lahu loolu mooy ñaanu ki nga xamante ne nii day sol yére bu bees day dalo loolu la ñuy wax ci olof daloo dafa am yére boo xam ne yére waajukaay la mu yére yu yees yeeg yu am valeur yi nga di ko daloo bu ñëwee daloo daloo lu yees mën naa doon kër mën naa doon woto mën naa doon yére am yére boo xam ne dañ koy daañoo waaw ndaañ laay lay doon mu yére yi ngay yendoog yi ngay sol ci kër géeg yi ngay kiyee bokkut ak yére ba sa taatu gaal waaw jamono gënoon na fee nga xam ne nit day am yére yoo xam ne ca taatu gaalam la ko def moom xew wum fonk rek wala lum fonk moo koy tax mu génnee ko nga xam ne fóotagu ko fóotagu ko am nag yére yoo xam ne moom yére yére yendukaay laag yére e, nii nii rek nga xam ne yum daañoo ba noppi la waaw yum daañoo ba noppi la yére bu yees na ku ko am te bëgg koo sol yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo jàngale ñaan gi waaw Eh, laka alhamdu anta kafawtaniihi asaluka min xayrihi wa xayri ma sunia lahu wa auudu bika min charrihi wa charri ma sunia lahu am na geneen ñaan goo xam ne danga ko danañ la ko ñaanal maanaam nit moo koy ñaanal lii ma wax nii mooy ku am yére bu bees bu kosol bu fekkee nit da ko am nag nga gis ko wala mu won la ko ne la ñaanal ma wala mu daloo ko mu yére bu bees danga koy wax ne ko tub lii wa yuxlifu llahu taala waaw tub lii wa yuxlifu llahu taala wala nga ne ko ilbas jadidan wa ish xamidan wa mut shahidan waaw yàlla na nga ko sol mu doon yére bu yeef peq waaye nga dund ci dund gu neex gu ñu sant waaye nga faatu it doon koo xam ne ku shahid ngay doon dajeeg ngërëmul borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ñaan yii de tey moom lañ indi buñ yàlla mayee ñu dund ba dimanche ji di ñëw daañu indi yeneen ci yi nga xam ne dinañ ko soxla xam naa duñ ko mën a tënkaat yónnee ko ci ojo niñ ko daan def ndax euh, suñu bisu subaak yitte yeeg yenn yu baree bari te bëgguñu wax ko ba noppi nit sàkku ko te duñ ko yónnee muy teg ci ñàkk dëkkoo kàddu waaye waxtaan wi ku ko déglu dégluwaat ko dégluwaat ko moo xam ci YouTube bi la wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bu almisbaax yi euh, danañ ci mën a tënke dara insha allahu taala yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole aar yal nañu yàlla defal ñu kendalu jàmm